matériel bi nice waaw loolu gars yi naan gars am nañu problème gars yi am am nañu problème. waaw ah, doole bu bees tax nga. yee nee naa la may ma un mois nga xool lu leer laa la wax. fan la ñuy xaar Ndiaye instant yaa ngi ci contra wala. non instant yi néew ma ci contrat nag. waaw contrat waaw maa ngi sama ruq rek toog di xaar. maa ngi sama ruq toog. génn ci kalaaf coow li woon na. waaw noonu la demee génn nañ ci kalaaf coow li bëri woon na trop mais instant yi moom di ñu xoolaat suñu kanam xool li ñu passé waaw noonu la demee. waaw non ñaar défaite laa ci am ak benn victoire waaw noonu la demee. naka tournoi bi noo ci doge woon. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek waaw dugg nañ ci mais xëy na loolu lañ ci yàlla ceraloon jël nañ ko waaw loolu la yàlla dogal daal mais bëgguñu ko noonu mais loolu la yàlla nam waaw lépp luñ doon def ngir nam def triple nañ ko mais loolu la yàlla dogal waaw lañ naan bésu am du bésu ñàkk waaw noonu la demee waaw. gisee ñi nga bokkaloon kalaaf bi ngeen jot a mosante nag nga waaw naa est-ce que ñoom ñëpp waaw ay mbër lañu rek comme mbër yi rek xam nga mbër moom da ngay daan kii kii daan la noonu la demee rek kenn manul kenn kii yàllaa fi ne rek ku yàlla àndal rek waaw. noonu fan la ñuy xaar Ndiaye Sané. waaw fi ñu koy xaar mooy ci eh, grand combat yi rek. waaw foofu lañ koy xaar foofu laa foofu lañ koy xaar ci grand combat rek waaw. promoteur yi ñu lay contacter saa wala. waaw ñu ngi may contacter ñu may ko contacter mais dara soteegul quoi. lan la ñuy proposé mooy loolu. bari na non bari na rek bu di xalaat naa du dara di ngeen dégg combat Ndiaye Tine. mbir yi duñ nangoo wax war a boole. non gars yi mooy la war a booleel xam na ne promoteur bi Ndiaye la ko war a booleel moom xam na ko loo ciy daw. kuñ kuñ ci tuddit mooy loolu waaw mooy lan. non xam nga rek gars yi mooy loolu ko ngi ci tuddit dañuy toog fee di doo comprendre quoi. mënuma comprendre loolu ci mbir ba léegi koo ci laaj kan lañ lay proposé duñ ko nangoo wax lu tax. laaj it di yaakaar ne mooy loolu. mooy lan mooy waaye mooy loolu rek mooy loolu. méttiwul mooy loolu amul dara. mooy loolu mais ku ci pare pour Ndiaye rek man pare pare naa. bépp adversaire bu losik pour Ndiaye Tine man pare naa pour bëre yow. yaakaar ne instant buñ la joxoon combat la. non bari na bari naa fi adversaire yoo xamante ne mooy lu rek sama adversaire yi ma gën a taamu moom fi mu toll nii na ñu waaw mais fi mu toll nii moom mooy loolu. waaw fi mu toll ñan nga gën a taamu. ñoo taamu champion yi ci kaw rek. waxal seen i tur champion ci kaw rek man mi sax champion bari na. mambal bala gay mak na maak moom pikin waaw amul combat newul ci dara bu pare pare na ñom ndigalin ñoo ñep amet demin ñoo ñep ay combat yu neex la yaatu daaw da faal sok ñoo ñep ñoo ñoo di ñam combat waaw même sok neex na mak mom newul ci dara waaw war nañu mën a laale maak moom waaw la amna solo ngeen done préparer combat muy sa mak tafatin ya, naa biñ gënee ci combat ba lay gisunu nga wax ci tafatin bu dé gën na ci lim ci gën Euh, combat bi naka ngeen ci duggee woon ak bi ngeen ci gënee coow. waaw dugg ci détermination bu baax lañ ci dugg woon waaw mais comme li li ñu naan bésu am du bésu ñàpp Tapha lépp lu mu waroon a def ngir ndam def na koog lépp lu mu waroon a def ngir ndam def na koog mais loolu la yàlla dogal. waaw loolu la yàlla dogal bala Gaye la yàlla àndal di ko félicité bu baax.